salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi Safinatou Touba TV leen di bu baax a baax tey nag darsu bi day jëm ci laa ilaha illallah muy kalimatu tawxid nit wax lu gën a màgg lool ci kaw suuf mbokk yi laa ilaha illallah dafa nekk 166 boo ko àddadee waaye xaraf yi ko composé ñetti xaraf dong la boo leen xoolee ñoom ñoo dellusiwaat ci biir la ilaha illallah muy laam alif ak alkubeer. soo ko xoolee day nekk 36 36 yooyu nag boo leen doolee ci 166 yi laa ilaha illallah moo la jox 202 mu toll ak rabbu kon gis nga laa ilaha illallah dafa delluwaat ak ci rabbaani yeeg sunu borom gi 202 yooyu nag soo ko jëlee nga multiplier ko ci 13 xaraf yi nga xam ne moo composé laa ilaha illallah moo la jox 2626 moo tolloog aay bi fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran kon gis nga. ni la ilaha illallah duggante ak aaya bi moo ne kon laa ilaha illallah fépp foo nga fa mbokk yi nag ku bëgg a yegg ci yàlla wala nga am xam cafkaak yàlla wala nga bëgg a jàppandal ay mbir loo ci jublu rek lii ma lay bëgg wax mën na ko mbokk yi ni ngay liggéey mbir mooy astaghfirullah 166 salaatul fatihi 166 laa ilaha illallah 2626 fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri six salatul fatiha neuf nga ñaan sa soxla chers frères et sœurs avec un grand secret de la ilaha illallah c'est un kalima de tawhid personne n'a jamais prononcé un mot plus puissant que la ilaha illallah et n'aura jamais prononcé cela donc la ilaha illallah son poids mystique c'est 166 Et les trois lettres qui ont composé la ilaha illallah, c'est l'âme, alif et al Donc tu vois que ce sont des lettres qui se sont répétées dedans. Et alif, lam et al c'est 36. 36 plus 166 égale 202. 202 correspond avec Ismullah Rabbu. Donc c'est le Rabbaniya de Subhanahu Ta'ala. Là, il est là composé de 13 lettres Donc, tu prends 202 multiplié par 13, ça te donne 2626. Correspond avec Fa yusran, yusran. Donc, tu vois que rien n'est euh, rien n'est plus puissant que la ilaha illallah parce que tout est dedans, Inch'Allah. Vous voulez avoir la connaissance mystique, vous voulez accéder sur les sur les sur les sciences d'Allah subhanahu wa ta'ala avoir facilité dans tous les domaines vous pouvez travailler ce secret astaghfirullah 166 salatul fatiha 166 la ilaha illallah 2626 fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran 166 et salatul fatiha 9 e vous amenez vos invocations, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider dans tous vos projets, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.